gentlemen, b-boys and girls et puis listening to Feeling Dakar TV donc on est là pour décortiquer l'actualité à notre façon de euh, Saa euh, Wolof waaw ah, seetaan ñëpp bismillah saa yi du nga ko fee koral yoon nowee laggee bàyyi ma présenter ça après nga nuyoo quoi lu dara xam naa respecté nga heure saa neen Ibou Fall lañ ko war a yóbbu dalal xel <laughs> gaa xam ne da ngaa tardé loolu garaawul quoi ça. du jafe-jafe. ah hmm. la wax si nga ne. bon <laughs> non xam nga Sénégal daa bëri xam nga ñuy wax. Ibou Fall bu Ibou Fall bu Imaja. waaw soi mu def tamit. intellectuel ah Ibou Fall nee na président moom warta na fi di football ak di bale. ah loolu xaw ma nan chef de l'État buy jël bale. waaw na nangam xam nga hmm. loolu. kon dëgg dëgg dëgg maanaam. doog poora dëgg. tey suñu yaram tàng lu tax mu wax loolu. ah Ibou Fall day moom ah, day gisul temps yi Macron. day chroniquer rek mu ne président Macron temps yi nee na maanaam bon dana mos nga gis. oui buy yor bari. mais président kii bi nag bu fekkee ne bi lay wax. Hmm. fen na waaw fen na moom su nekkee ci Afrique lay wax kàcc na. waaw hmm. parce que Kagame su nekkee ci Sénégal lay wax ba tey. Macky Sall defoon na ko fi. Ah, voilà kon jeex na. Macky Sall defoon na ko fi Afrique Kagame def na ko fi. fële ci ci monde bi. yow wax nga lépp waaw ah. avec hmm. su dee ci Afrique la wax. fenn. mais mag la su fekkee ne kàttan rëy na de tamit. mais dafa kàttan li mu wax dëgg la wala du dëgg. non da nga naan na quoi. non ban juum na lii du te. mooy loo xam ne. yaa ngi ko def def cinq ans rek di juboo léegi mu ngi noonu léegi rek la problème bi. xam nga gis nga. <laughs> rek mu ñàkk fayda muy def yii fii di yabaate. da nga koy wax ne mais analyse bu baax la woon da koy wax ne kàcci nga. non c'est pas loolu mooy pertinence. non ci yenn sujet yi laa wax. non non man sujet bii laa wax loolu mooy pertinence. mais des fois nga la nga jël la non aw ma problème. man dafa juum a tardé. dama lay laaj dama lay bokkul xalaat. bokk xalaat mais li mu wax ay fen la. non masul gis chef de l' état maam amul chef de l' état nangam boo xam ne. Ah, li wax dëgg yàlla nag li mu wax amul quoi. mais day fen ah, <laughs> waxul dëgg moom. ma ne day fen. warmal ban war est-ce que warmal nañu ñun dëgg yàlla. est-ce que waruma amoon bu nit bu waxee gisuma. lu ma booy wax dara booy dem bay toog ci plateau di wax dara da ngay gëstu li ngay wax. xam nga <coughs> loolu sax ba tey bu nee gisuma mën naa koo nangul gisut mais daal xam nga lu ma ci wax mooy xam nga tey bu ñuy wax teggin mm-hmm. loolu gisoon naa ñu ñu si dagg bopp si di ko tooñ mais je pense loolu ku ko ci wax tooñ ko dama gis gars daggee ko waaw non gars la léegi ñun ñoo nekk fii voilà loolu boo fi jéem a tekk di sang bu buub est ce que ñun dañoo nekk fii di wax waxu buub non damay fàttali allez-y waaw waaw booy faral nga bàyyi ba wax ji mu kii xam nga le mot teggin ci laa leen bëgg euh, dimbale tuuti quoi parce que tamit suñ ma doon tolloolee te xam nga ñun nag comme dañ ñoo yàgg noggatu ba boolewuñ ñi ci mbir yi diplôme arabisant yi sax am na waa ñi nga xam ne euh, suñu làkk yi la ñuy jànge séeréer wala nàngam jafe-jafe boobu duñ ko am waaye bu am na lu may tolloo loo xam mën nga ne ma la ma laa meññal mooy li ñuy wax linguistique mën naa koo réclamer parce que ab dongo laa ci même bu ma ci dee profane xam nga baatu teggin xam nga mooy lan. Hmm. teggi maanaam mu ngi ko ci teggi étymologie bi maanaam fi mu ko mi ngi ci teggi xam nga lu tax teggi. Hmm. dangaa ngaa jubal ci yoon jàpp ne mën nga faa dajeeg lu la loo ragal wala lu lay gaañ wala nàngam nga teggi ko teggi googu ngay tegg mooy aw teggin. tegg nag ñu koy wax yoonu gaaw taxut maanaam tey bu doon kilifa dafa taxaw fii tey mu wóor ma ne kii daa juum mu wóor ma ne kii daal ku am wor ma la maanaam ku am baax la ku respecté sénégalais yi la mais tey ji lii mu wax dafa juum xam nga tey kooku danaa ko wutali teggin comme tey bu doon ab xalif général boo xam ne tey taxaw nga nangul benn saaga 400 nga xam ko danaa la may danaa la dinaa ko defi teggin mais bu doon keneen la du ma du ma du ma ko wax kooku ngay laaj ngay may circonstance atténuante loolu ngeen ko wax. Hmm? maanaam li ngeen di wax circonstance la. atténuante atténuante waaw kay du noonu ngeen koy waxee. kooku ngay may loolu. nga xam ne mën nañ koo induire en erreur. mais koo xam ne yow danga nekk da ngay chronique déjà bu fekkee ne loolu xamoo ko mooy yow amoo sa place ci place naan da ngay chronique parce que chronique dafa laaj ay recherche dafa laaj benn sérieux saa wolof demul jàngul jàngul français sax bay am yenn diplôme yu kawee mais danaa tëdd nag. mais dama yéex a nelaw xam nga lu tax. Hmm. par ay recherche leen luñ lay def ngay xool lii ndax lii am na wala lii am ni fan la masa am nangam nangam est-ce que baat bi nii la demee nangam yooyu bari na lu muy jël sama temps ku toll ni Ibou Fall nga ne jàng na ba wannu lef ñëw toog jàkkaarloog sénégalais yi di ignorer que ne am na président bu ko mas a def fee wala Paul Kagame wala même Macky Sall bu yàggatoo njaay bi ba muy taxaw di ñàkkal fayda waaw di ñàkkal fayda suñu njiitu réew kooku yow bu ñuy wax teggin kooku taxul sama wasila di nee na yar du jàggane jikko yu rafet jikko yu bon yëpp dañ ko dind ci yow ba mu jeex tàkk déedéet dees koo denc fu làq yeggu waaye ko man ma ne ba yegg ca matu koo bañ a man sëñ Tuubaa wax li te Ibou Fall daa man ma ne ba yegg foofu kon man mérité wul samay teggin wala sama worma day fen jërëjëf ok jërëjëf ma ñëw ci mhm. lan nga bëgg waxaat waaw non jeex na loolu la rek loolu laa la relancer di la wax ngay ñëw heure aussi c'est important. tey daa mel ni moo bëgg a présenter émission. waaw <laughs> ah, tey waxoon naa ne. <coughs> seen ànd comme mu boole ci bokku joon ci émission bi de. seen <laughs> ah, la ko laaj <laughs> maa ko ci boole wala moom ko ci moom ko moom ko laaj. Ah, moom ko fàttali. li mu lim daal boo boole ko après mu laaj ma ko. waaw kon non non c'est bon c'est bon. waaw kay xam nga yow da ngaa juum nii xam nga a li nga def ci ànd. yow bu boobaa lii mooy njuumte. non liiru ko fii laa wax. waaw non a a a ne non kon man aw ma ci problème man kii bu ma laajee dama ko war a tontu. mais boo yow da ngaa kon Bamba nga war a wax. vraiment yow kii lay waxal. kon ba tey kon ba tey dalal xel bi moo ci jaaxal. waaw kon waaw non dëggantaan. non non yenn saa yi <laughs> xam nga. dof dalal xel dof boo fekkee da nga yaakaar ne mooy. kii roog ñu di koy yeew wala kii kii dóor rek mooy loolu. mais ku jàng ba woon lef di def yii war nga xam ne ah wérut xam nga nag dof xel mu du tey. est-ce que du mauvaise foi rek xam nga lu tax dof du dof du wàcc xel ma du tey non dama kii dafa soxla dañ ko dafa soxla ku ko yóbbu dalal xel. <laughs> non déedéet même bu dee mauvaise foi gis nga booy fen sax nga fen fen yu harmonisé même booy xeex ñoom président Diomaye nga leen di xeex ñoom mais da ko war a def ak intelligence mm. ñoom li ñuy def nii dañuy teel a wane ay seen arme man man ma ko ah. parce que analyse la nag mais dafay ma ne ah, ma ne waaw analyse yu ah, bon la ma ne xam nga ñun lii daf ñu arrangé maanaam boo amee xam nga dañ na xarit bu dof noonu bu yeewoo ko gën xarit bu dof noonu bi yeewoo ko gën mais sam noonu kay bu dofee méttiwul daf ñoo arrangé parce que li muy même ñoom li ñuy def nii di diaboliser defuñ ko ak intelligence sénégalais yi dañ leen di jéppi day tax ñu gën ñoo fonk jërëjëf laay waxee moo tax ma ne bu fekkee ne wér na maanaam jaaxal na ma parce que même booy diaboliser nga xam da nga bañ nit ki nii ci intellectuel bu toll ni moom war nga mën koo defee ak harmonie. boo mënu amul capacité yooyu say capacité nu mu tuddati ñëwut mooy sa lépp ñëwut. des laa war a euh, faji loolu laa jërëjëf merci euh, jërëjëf en tout cas ñu ngi koy jaajëfal bu baax saa el ak euh, Thioune ak élément baax fas yéene àndal ñoom ci li nga xam ne rek moo di waxtaan li ñu fas yéene faram fàcce nag. bokk na yow li nga doon wax léegi est-ce que laal nga laaj mooy eh, mairie Dakar bi waaw. waaw noonu da ngaa tardé sax. ah déet. ba mu yaay patron ah waaw man kay jaaxal benn problème man amoon problème ah. bu ko ah, yéenee dama ko laaj ne ko dama ko laaj. waaw non léegi yow it ba ko ak intelligence non dama laaj ne ko est ce ah, que est ce que nangam dama ci wax xam nga ba tey forcé ma dara bu 15 heures jotee da ngay yow ma bëggee soog yow yaa ngi Ibou Fall ah <laughs> yaa ngi Ibou Fall parce que yow en voulant m'attaquer mais Bamba laa ne mooy mooy chef bi mooy que est ce que sa est sa sa sa sa yelleef maanaam jiite gi ngay jiite jotaay bi. waaw ndax da